mbokk yi julli ci gannaaw bu nu yàlla julli ci seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp di balu xaq ñépp yàlla na yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yi yépp ci guddi gi nga xam ne ci lañu génn lépp lu ca waay def te yàlla tax yàlla na ko yàlla nangu yàlla gis na ko ba noppi te ñu fekke ko ay at yu bari tamit ànd ak man akuk tal tomb bi ñuy fas yéene fàttalante tey euh, day mel ni ab laaj boo xam ne kii ñu doon fàttaliku ak ganeem àddunaam moo koy tontu laaj bi moo di euh, lu tax màggal yi ak gàmmu yi di fees dell ak ay nit ay kilifa di ca bari lool ak ña nangu ñu yilif leen muy kilifa ak ñam yilif ñoo fa naan gàññ moo ne teewul saa bu xew-xew bu mag amee bu mel ni ak màggal ak fu mën a ame walla ak gàmm ak fu mën a ame benn coow lu bari dana ko jiitu loo xam ne ña koy waxante ca màggal ga walla gàmm ga fa lañuy ñuy furlee ji la waxante te ñoom ñépp ay jullit lañuy ñuy tuddoo mbaadu kon bataaxal yi ñu leen di yónnee ci màggal yi walla ci gàmm yi dafa jàllut na mu war a jàlle walla day jaar ci bii nopp jàll ci beneen ba tax ay ati at ñépp di wuy ji te melokaan yi dara du ci soppiku saa su nekk ngay dégg ñuy seet ku ñuy war a woo laaj ko ana lañ ko joxoon fu mu ko dugal saa su nekk ñuy war a woo koo xam ne dañ naan li mu wax ana fu mu ko teg te bis bu set màggal la wala may gàmm ci ñetti bis ñetti téeméeri bis yi at mi am ak juróom-benn fukk yu teg te moo ne bokk yi li ëpp ci ñi coow di topp li ko wolof di waxee naan bu bu ñu xëyee ci jamono jëkk ja weñ yi ñépp lañuy topp waaye bu naaj wi tàngee nag ku weñ yee topp la tax weñ yee topp ko ca moom la nekk nekkatu ci ñépp loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne ñoom lañ yilif lu néew lañu leen dégg lañu leen di dégg ci coow yu ne mel waaye li ëpp ci ñiy dégg mooy ñi nga xam ne ñoo yor kilifteef ñoom lañuy ñuy joxañ ñoom la weñ yi topp mbaadu kon nu ñuy tànne kii war a jiitu nit ñu topp ci moom daa am jafe-jafe waaw walla déet am na jafe-jafe te moo ne loolu kii ñu doon fàttaliku guddeem gim nga ne àdduna sallallahu alayhi wa sallam wane na ci yoon wu weex tàll wu leer naññ woo xam ne képp ku nekk njiit bu jaaree fa mu war a jaar benn jafe-jafe du am loolu moo tax ñu doon gaaral keroog ne lu mel ne gàmm su ñëwatee def ay géew def ay kuréel di yëkkati ay am daax tagg yu ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jaadu la waaye nag tegoon fa boroom xam-xam boo xam ne ñiy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weneen làmmeñ wu bokkut ak suñu wos daf fay toog suñu waxee fanweeri nit jox ko mu leeralal nit ñi li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la lu ñuy wax ci yonent bi nag amul lu ñu ca war a bàyyi waaye lépp lañuy ñuy jël ndax ak dundam ñi ko maanaam ñi melalkat yi dëgg-dëgg dañ koo melal niroole ko ak ndox mu neex ci yaramu nit ki lu nekk nit mën na koo tàmm bàyyi ko ba mu des ndox rawatina nag ndox mu neex kon dundug yonent bi ci boppam ak jëmme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel na nit ñi jox guñ ko gëdd gi mu war a am dëgg-dëgg ba tax fu ñu ne yonent bi lañ fay wooteel ñépp dem fa te du tax koy soppiku du tax melokaan yi soppiku moo ne moom day ni mu toll ci waajtaay wa ca askan wam bokk te doonoon na am doon ci ñi natt ñi natt nit réeyam ci askanam yàlla dimbali na ko ca jaarale ko ci askan wu ñu fonkoon ca jamono jooju waaye bi mu gënee àdduna it ci jikkoom ak melokaanam laata muy nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko doy la woon ba ci seen alal sax te bari na kuy doyloo nit lool ba nit mën naa dem ba ne moom su ko waxee na dem dugg ci teen bi sax mu dugg ca waaye du àgg ci di ko wóolu di ko dénk alalam nag day téye alalam denc ko ba mu dëgër muy bàkku di dën fëggu dën su ne ma daanul ci teen bi ma daanul ci teen bi waaye moom sallallahu alayhi wa sallam laata muy nekk rasulullah wóolu woon nañ ko ba di ko dénk alal te boo ko dénkee alal it na ko ko joxe woon noonu la la koy delloowaate moo tax bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi wa tax kenn ku nekk bàyyi ay yitteem dem euh, bu kuñ ku yilif moom buy ñëw kenn du ko yëg waaye ki yilife moom suy ñëw ñépp dañ koy yëg wax waxkat yi topp ko bu demee wax fa lu ne gàññ kaar-kaar ñam fekk tontu ko lu ne gàññ kaar-kaar te du tee nis tuuti moom ñu tàmbali koo joxoñ naan weñ yaa nga ne topp ko lu ko weñ ñi topp loolu it ñi nga xam ne yàlla daf leen a nattu ba jiital leen ci kaw aw nit bu gàmm mu ñëwee waras leen a jox misaal ci dundu gi leen ci bi sallallahu alayhi wa sallam te bañ koo tuddee rek santaate ak gërëmaate rek ngir lii ak laa ci loo xam ne ëllëg si biir ñu tàmbale laaj leneen ndax am na xakim buy wax ne nit euh, dafa bañ ku koy laaj ba àgg ci soo ko doon wax biir sa tibbal suuf jox ma sax ak suuf ni mu baree te foo foo làmb daj ko bu la séenée nga ñëw léegi tey mu tàmbalee jàmbat moo tax faw ñu waxtaan ak nit ñi delloo si leen ci yonent bi tax ñu daje dajale nit ñi sallallahu alayhi wa ci wàllu jikko wàllu jikko misa junju naa ko léegi boo demee ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay fekk mu doon ko yaatu dënn koo xam na du mer du mere kenn du delloo mer waaye doon ku tabe bari na nag bokk yi ku ñuy joxoñ naan dafa tabe tabe mooy kan mooy ko xam ne lim lay jox moo ko moom lew na ko domm te it wut na ko ci anam gi mu ko war a wute te it lu mu war a moom la kooka mooy joxe ñu naan daa tabe waaye koo xam ne lim am fa muy mujj mooy dañ koy woo muy wujjee ko dikk buñ ko tuddee ab tabitam du ko royu fa yonent bi sallallahu alayhi wa waaye fexe it ba kenn du lor loroo ki sa loxo it jikko bokkoon na ci ay jikkoom sallallahu alayhi wa sallam ba tax na ñiy bind ci seen loxo it ci aw këyit tamponné ne dañ ko jàpp nañ jàppi diw loolu it war nañ leen koo leeralal ba ba ñuy signé naan nañ jàppi diw ñu segg ko seggaat ko ñu jàngaleen ko ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loxo mën naa signé ne nañ rey diw ñu daal di koy rey laa xawla wala quwwata wala yaasu billah waaye it fexe bay jomb lu nekk nga jomb koo def euh, Muhammad al Busiri am na fa muy tàggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba àgg ci ne ni ko yàlla waajale ci melokaan yépp ba mu doon rasulullah bi nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran nekk ab yonent du ñëwaat gannaawam téewut mu daa dund li na ñuy dund ci lan di am ak a ñàkk àggoon na ci ñàkk foo xam ne lu mu lekk du ko am këram duñ fa taal añ duñ fa taal reer waxuma laa ndékki waxuma laa njoganal te yàqalu ko dara ci ak jaamu yàlla am ba waxtu wam daan jóg di def tahajjud salatu tahajjud bu munta taxaw ndax xiif bu metti day wut ay doj geg ko ci baljat yi faar yeeg jëm suuf takk ko ba mu dëgër ba mën a taxaw nee na àgg na ci doj yi wër Makka ak Madina naa ko tey nga ñoo soppi wurus jaay ñu ndax nga am loo lekk mu ne leen jomb naa ko wa shadda min shaghabin axsaauhu wa tawa taxta alxijarati kasxan mutlaq al adami wa raawadathu ljibaalu summu min dahabin an nafsihi fa araha ayama shamamin jomb mooy lan mooy loo xam ne wét ak wétliku ngay yamale loolu war su ne koo jàngale ci juddu guddi gi ñu fàttaliku gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it euh, way ba soo xasee ba ne diw moo fi gën a baax àdduna du wëlbatiku ba nga ne diw moo fi yées boo xasee ba ne penku la rek ba ba àddunay tukki li yaa ngi dund penk lay doon loolu it was na koo jàngalaale bu baax a baax a baax a baax moo tax euh, Seydina Anas ne yonent bi doy na sëkk misaal ci njiit koo xam ne ñi fi ñëw yépp yaa leen fi dajale te yàlla waajal na la ci sa jëmm ba ku la gis dootu ba ku koy xool du bëgg a bàyyi ba yàlla naa ne bu ngeen koy bu ngeen bu ngeen dematee fi moom bu leen jàkkaarloo moom nekk xujj di ko xool di leen lamsal ndax na ko yàlla binde sayiduna anas moomu nee na dund na ak yonent bi lu mat fukki at yim nekk ma madina euh, liy tegtale ne loxoom mosu cee def luy lor nit loxoom moo gënoon a nooy mbalaan mbubbum tiisu bi ñuy wax sooy wala suwaaw waaye xetam it moo gënoon a neex xet yépp yi neex ba tax nit di jóge fu solo di ko wuti kon ku xam la xet moom koo dëkkalu doo xam xetam waaye it nee na e, kersa gi mu ëmbaloon doomu aadama yi ta àggoon na ci moom mi dëkkoon ak moom te ku dëkk ak nit fukki at war ngaa mën a gis benn bis mu ne ana li ma tegoon fii ku ko jël ak lu tax teguñu ko barab sàngam ba ma waxoon ñu teg ko waaye nee na musu ko ne lu tee nga def nangam wala lu tax nga def nangam ci yenn yenn waxee ni wala mbas mbas diw waaye li gën a yéeme mooy keneen wax na ne Abdullah ibn al-Xaaris ne nit ñi mu jaxasool ñépp mosu cee gis ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kanam gu leer ndax foo ko fekk day mooñ rek waaye am na ko wax lu gën a yéemal waxaat na moom sidna Anas beneen loo xam ne tey jii ku ko defoon ci suñ jamono ay mën naa doon mburu sarax nee na dañuy dox ci marché bi misaalal ci misaal marché mi ngi sol benn manto boo xam ne bii dëgëraay bi ëpp na mu romb benn waay rek waa ji jàpp ci ginnaaw xëcc ko ba nga xam ne yar yaa ngi gis deretal ji darab yonent bi sallallahu alayhi wasallam deretal ndax xëcc gu metti mu geesu ne ko lu mu doon mu ne ko lii la yàlla jox te du jeex mukk jox ma ci ndax soxla naa ko ana bu doon jamono lu ñuy def bala nga àgg ci moom ba di ko laal ma ne su koo sàkkal pexe wala bu ko defee defoon woowu it mburu mën naa doon ay mën naa doon mburu yu sax waaye yonent bi sallallahu alayhi dafa geesu rek ree ne wax na dëgg kët da koo soxla muñ waaye bokk yi bu ñu demee ci geneen wàll ci fit wu dëgër yonent bi sallallahu alayhi ci la yàmm ndax lan Seydina Ali nee na bu bis masaan ñëw lu mel ne xare wala daal raj-raj loo ba am ci dëkk bi bañ ànd ak moom dem ca aw xew masalan ndax da daan dem xew yi nit ñi di ndawtale di seetu ku wéré di ci fajukaay yi di jaale ji bu masaan toll ci yenn xat-xat yi nga xam dañ ko war a aar ndax bañ ab noon yongu agsi ci moom dañuy xool rek seen ko ci digg xare ba ca ca ca front ba ci kanam ndax lan bañ ko daan garde ba yàgg yàlla ne ko wallaahu ya'simuka mina naas ci bitti wax ak nit ñi sa kaaraanga yàllaa ko yor loolu ak njàmbar mënu ko weesu wuuteeg koo xam ne balaa génn dañuy xool teere ba xam nooy naam de fenn fi nekk ñu taxawal fa kuy xool ba xam am ana luy ñëw lu dul ñëw dee rek la ragal. te de yàlla nee na ci alxuraan fu waay mën a nekk nii la réseau téléphone di fekk fa nga nekk lu xar ci la ca mbedd ma ba ci sa biir mbàjj woo la ne la diw lay woo bu dee action noonu lay mel ba ko yonent bi sallallahu xamee nag xam liñ ko yónni ci nit ñi mu war a dund seeni xat-xat ak seeni jafe-jafe tax na soxlaatul ku koy garde ku dul yàlla loolu it waras na koo dàngal kilifa yi ñëw lool ndax am na ku ñëwoon fii ci magal Tuubaa gi jub président de la République keroog jumaa ji nit fitna ji méttee fa amoon loolu it fa ñu ko ci koo xam ne nag juma war ko cib dëkk daa war bu ñëwee dañ ko laaj ba xam da ngay julli jëm ne bu fekkee jumaa yi nag bokk yi loolu itam mét na jàngal ci guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee bu jotee leeralal kilifa mu def Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam roy téefam ginnaaw boo ko nee doo jullit du ko neex la koy neex mooy ab jullit nga kon bu demee ba yor yan yan yi wóor teg fenn tànkam furut fa ko yonent bi tegoon ak lu mu jafe-jafe te moo ne li ñuy waxtaan lépp nit mën na ko ndax musu def lu ñu mënta lu ñu musta wax lu ñu mënta xam mus def lu ñu mënta def te royukaay la ko yàlla yàlla wax ne moom la ci jullit yi ak njàmbaaram it àgg na ci benn bis coow lu bari lu mel ne daal ci jamono ñuy yuuxoo naan barab sàngam sàcc dafa dugg ay agresseur nga fa ci misaal bi nit ñi tam di wutali fa yëf ya nekk daa taseeg moom mu jóge mbedd moomee di dikk ne fi ngeen jëm ñu ne ko dañoo wax ne ay agresseur dañoo nekk fi barab loolu wax yoonu jamono ji ji neex a dégg la waaye def na ay ca ñu dem waññiku ànd ak mbooloo mi jiitu ci kanam di wax waxee lam turaawu lam turaawu maanaam yéen dal leen te xam ne su ma àggee dana rek la ànd leen ak seen sago te xam ne bu ma ànd bu ma àggee dana réglé waaye bokk yi koo xam ne moo yilif këram ñu ne sàcc dugg na ci biir kër gi mu ne ku fexe ba buñu buñu ku ubbi bu ñu la reyee yaa ko xale yëg xëccaat mbalaanam kooku mat naa jàngal njàmbaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam kuñ ci ne dañ lay woo barab sàngam suba ngay dem wala ginnaaw suba ngay wuy ji koo yaakaar danga ko woo téléphone ne ko dañ ko woo ne kooko woo ko ne ko dañ ko woo barab sàngam xanaa yàlla nekk fi te yàlla moo ne woon yeneen bi wallahu yaxsimakum min annaas loolu itam képp koo xam ne euh, nekk nga fu fés ba bés ñu mën laa war laa wooye war ngaa fab sa tànk teg ko fu ko yonent bi tegoon jàngalante ko ak say moroom ba xam ne su wax jotee da war a wax li nga war a wax rek su def ko jotee nga def ko te wéeru ci yàlla nag moo tax bi ko bu mag bi di tagg dama koy tënk ci lu gàtt yooyu ma wax yépp te ñu dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi dund ak moom nettali ko tënk ni ko ci ay bayit yoo xam ne ñaata yoon la ko nit ñi jàng ci gàmm gi jàll waaye dañ koy jàng di jàng jàngaat rek moo tax ñu waroon faa teg ku dégg wax ji mu leeralal ko nit ñi ba ku xëyoon ku fanaan ci gàmm gi boo xëyee bu ñu ne la gàmm ko nga am loo nett li ci mi ngi koy tagg naan boo demee ci xasida gi mu tënkee wallahu yaxsimaku min annaas wa qaani xafidun qaahirun jalla maaniu ma ngi cay wax ba naan nabiyul huda baxru nada daygamu lida man il juudu yanfi lfaqra wa sayfu qaatiu moo yonent bi nga xam ne bi mu la jub juddu am na sax beneen waykat bu ma jumul Ahmad Shawqi wulidal huda jub ci boppam moo judd bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna te duutu dee li fekk nit ñaa ngi fi mu ne moo tub bi nga xam ne bi mu gane àdduna ci la njub judd mooy géejug tab waaye tab nag sart yooyu da cay daje li ngay joxe danga koy moom te wut ko ni nga ko war a wute te mu doon loo war a moom waaye nee na it saa bu jàmmarloo ak noonu yàlla yi jotee mooy doon gaynde gi gu gar mooy doon gar gu metti gi gën a metti gi gën a tar waaye nee na ak tabamit àgg na ci lu waay ñàkk-ñàkk bu la joxee ñàkk tuxoo sa kër waaye it bu jël jaay sa jotee ci yoonu yàlla it du ne dem leen toog waaye mooy jiitu te jaaseem sax jëru mu di ko bocc ndax bu sànnee ay doj rek doj yi mel ni moo raw jaasi mooy fa ko yàlla doon wax naan wa ma ramayta is ramayta walakin allaha rama fa lam taqtuluhum walakin allaha qatalahum wa ma ramayta is ramayta walakin allaha rama waaye am na fu mu ko tënkaate it ci weneen bayit ci jalbul xulub salli ala babil huda naa il madaamu linnada laysi al ida maaxi rada babil ula walkarami wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu qattu lam yura walan yura fi shiyami jikko nasixun bila gishin alimun muallimu saxiyun bila manin kalaman yulayin najibun ajibun naasibun wa huwa naasikun huwa alaamiru naahi alladi alxayra yudminu naqibun raqibun mustajibun mushadabun masixun malaadun wax wa maaxin wa muxsin nasibun xasibun du ataaya muqaddamun huwa annaasu walmiisaanu nicma almumakkan kon jëmm la joo xam ne di wuy ji ay wooteem te doo ca jële dara du la tee def du la tee du la tax a bay loolu ñiy woote am nañ ci yan bu dis gan dañuy woote naan ku ñëw danga lekk da nga naan loolu mënut a ñàkk loolu jërtalimaa la ak ngan koo ne ñëwal sama kër bu subaa te yaa ko fa woo xanaa lum néew néew ñun africain yépp xam nañ soo ñëwee su fekkee guro lañ am ñu jox la ko su fekkee meew lañ am ñu jox la ko loolu moo tudd berne ci ñun waaye dajale nit mbooloo mi na gañ santante baax na lool waaye nag bokk yi ku la woo dalaa war a wax wala mu jox la moo tax jikko yonent bi ak melokaanam ñor xom ci jamono joo xam ne ji kenn ku ci nekk nu muy def ba génn ci dong lay xool eh, ku nekk nag ni ma ko gise te am na ñoo xam ne xooluñu sax bay gis génn kilifa nee na eh, bi rajo yi ubbi ko bari lool lu ne mën na ko muñ ba mu des émission yi ñu ubbi naan ubbi nañ ligne bi tey amul tem amul tem wax leen seen xalaat nee na am na ñoo xam ne dañoo amul xalaat far nga ne ko waxal te amul tem tënkuñu la ci dara dal di cay teg ne man ma teg ca ne liñ ciy boole wax ju rafet nanguwu ko amul tem waaye na gàtt tegu ciy tàggin maanaam <clears throat> taxyiir ak tat yëpp mënuñoo ànd ci mel ni biir moo tax ku sañ a woote nit ñi dikk bu ñuy dem war nañoo gis gan rawatina nga woo ci yàlla nee na ak yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëriñ bu mag bi foofu lay jeexale ci téeréem bi mu bi mu tuddee mawaahibu naafi fii madaa'i shaafi ñaata yoon la ko nit ñi dàng ci guddi gàmm gi waaye aw bayit a ngi ne woo xam ne nit da ko war a ci biir këram royee ko yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni ko sëriñ bi war melale bu génnee ci penc mu mel fa noona su génnee ci dëkk bi ci réew mi fu mu dem ñu xam ne kii mi ngi jàng mawaahibu naafi day wax ci yonent bi di ko wax ay melokaanam ba aksi ci muskin li shaakin bishrun li baakin musrin li xaakin wa di nidaai gunmu faqiiri jabru kasiiri siitu xaqiiri baagi wiqaayi mooy lan mooy koo xam ne jàmbatukaay la lu way am ci jafe-jafe boo demee soo ko jàmbatee ci kanamam benn boo demee da ko gis-gis bu yomb mooy bayti boo demee da ko gis-gis bu yomb soo waxee dana la déglu te boo noppee dana la tontu loolu ni ñu ko tàmbalee ci biir kër yi waaye it xun mu faqiir mooy mànga siinu ñàkk ñu ñàkk lu waaye ñàkk-ñàkk ba mën a lugg tabandoor it soo ko laajee ma jox la junj naa ko ci ginnaaw waaye jabru kasiir ku demoon ba naagu ba ne dara mënut a baax it boo ko gisee bu waxee yow sam xel dana dal sa sa sa saw yaram dellu siwaat sa jàngoro tàggoog yow surtout xaqiiri ku bëgg a wax te mënoo waxit soo demee fa moom boo ko fa jàmbatee sa aajo dana faju ci naan euh, mooy soo ko nee sama miirub kër dañu fay beewal tooy tuur ndox bés kër gi kenn mënutu fa nooyi danaan la baax na demal bu daje jotee aju ko woon ci julli ajjuma kese du ne diw nee na ma du tëb tëbit wax loola ndax yàllaa ko dégg la wax day wax di wax ba agsi ci nañ moytu it di tuur ndox ci mbedd mi rawatina dem ba ci sës ci kërug jàmbur ci miirug jàmbur ba teelee na noy moo tax ñu bari dañ daan wax na looy wax bay boo nga wax da koy dégg wax nañ dëgg da koy dégg da koy gis daana dox ba agsi ci barab fekk ñu fay def lu ñu fa war def mu romb leen ndànk jàll kersa gu bare ga ak jomb naa di tësante ak nit ñi ci mbedd bi te nit ñi lu ñu lay nëbb bu ñu ko xas boo lay xasee ba gis dutuñu la ko nëbb moo tax surtout xaqiri baaxi bi xëy ñii seetlu téere bi nee nañ bayit yi benn bu ci nekk mën naa nekk baytul xasida gi ndax maanaam res tënk na jëmmi dundu gi yonent bépp sallallahu alayhi wa sallam ndax su fekkee yaa nekk ci kaw am doole yor lépp balaa dara sotti agsi ci yow faw dana am ñu dul àgg ci ñoom li ngay joxe dana am dul ñoom dana am it ñu bëgg a wax te duñu mën a wax agsi ci yow waaye na moo ne noon siitu xaqi kon yàlla nañu ko yàlla fekkaloo waat ak déwén te ñi nga xam ne dañuy yëggu ci politik ñoom ñépp ñu bañ a defati màggalu Tuubaa fu ñuy tontooti diw ci wax joo xam ne yàlla nee na yonent bi naan du ca am yoon lu may wax ñaaw rekk la waaye nañ moytu it bu ñu dematee ci gàmm yi ak fu ñu mën a gàmmoo it ñuy te it def ko tontuwaay boo xam ne day àgg ci ba waa dëkk bi naan yàlla bu mu ñëw far loolu it war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te koo ci ne doo ab jullit mu attan laa def lu nekk waaye it ñu jàngat ci dundu yonent bi sallallahu lu ñëpp bokk bu ñu la ko joxee te bokk yi fadaa yi am ni su ne dañuy dem ba ñàkkloo yaakaar ci képp ku jiite ñu ne la ñëpp nii la ñuy mel ndax ku dem bañ di ko jox yenn cër yi ak fu mën fu ñu ko mën a joxe ba bañ di ko limaale ci ñi gën a mag te du mujj futut ña ngi koy woo muy dem ak dikk ndax lan lim am fu mu ko jële nu mu def ba am ko loolu yit bokk yi ñuy wut ak àgguñ foofa it war nañoo xool fi ñu teg seen sànq bu ñuy wut te xam ne noonu leen nit ñi di wooye ñuy tiit ci wuy jigi ndax lan bañ a dem kaso rek ginnaaw rey amatu fi léegi moom dem kaso rek lañ ci bañ nañ ci bàyyeewale xel ba àgg ci kaso boo xam ne bii eh, ña ngi fay taseel ñépp seen bopp lañuy ñuy kaso bu mooy fan mooy yomal xiyaama yomal xiyaama bu ñu ci àggee eh, service yi ñu wax ne ñooy woon nit ñi fii ci kaw suuf ci Sénégal di wootee di la laaj foofu la gën a mettee ndax ñi dañ lay laaj ngay tontu léeg-léeg nga yeey leen ñu bàyyi la nga dem waaye foo xam ne su yàllay laaj du laaj jëmm ji lépp waaye cër yi doon def lay laaj par benn mujj mu bëgg doon ab xuloo sa digganteeg say cër loola it moo gën a a bàyyi xel ci alal ju ne topp fii wala lu ne topp fii yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu ya'maluun wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alayna qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay'in wa huwa wa ma kuntum tastatiruuna an yashhad an yashhada aleykum samcukum wala absaarukum wala junuudukum walakin zanantum anna allaha laa yaalamu kathir mimma taamaluun yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin